muy les magistrats du yëpp nag du ñëppit nag ndax ku généraliser rek danga ngaa dof kenn du généraliser man de duma généraliser waaye dama la bëgg wan ni ñooñu nga xam ni dañuy sol yére yu ñuul yére yi am lu weex am na melokaan yoo xam ni sunu ko meloon lu bëri ci àdduna bi day dox bokk na ci li ñuy xaar ci magistrat mooy kiy yore àtteb réew liy dox ci réew lépp ci loxoom lay tege su fas yéenee lépp jaar yoon jaar yoon su dëngee lépp yàqu kon war na ci juge bi ak ñu mel ni ñoom procureur ak ñu mel ni ñoom war na ci ñoom ñu ragal yàlla suñu dee ay jullit même bu ñu dul ay jullit ndax ki nga xam sa loxo àdduna mën na cee tàkkee war ngaa góorgóorlu ba doo jege essence doo jege pétrole benn war nañu ragal yàlla bu baax ñaareel bi ñoom magistrat yi war nañoo gëm ne lépp lu nu àtte fii danañ ko àttewaat fa kanamu yàlla alaysa allahu bi ahkamil hakimin te képp ku àtte fii ci kaw suuf la nga àtte baax na wala baaxul dossier boobu danañ ko yëkkatiwaat ci tirbinaalu yàlla yow mi taxawoon àtte ko da taxaw bu baax moo tax métier mu àtte métier très très très dangereux la ñetteel bi bokk na ci magistra dafa wara a maandu maandu mooy jël ñépp yemale leen même pied ndax luwaayi yi ñépp ci yem amul kenn ku am privilège ci ay loi ñoom day ñoo koy wax ci seeni àtte kon nag dañoo wara a maandu waaye nañu moytu ñu leen di jënd gor su baax su ragal yàlla amul njëg warul nangu ñu jënd ko pour compte diw contre diw ba ci président warula mën a jënd bu fekkee magistrat bu jub bu maandu nga te ñun suñuy luwaak suñuy lépp ñu ngi koy nattee Europe waaye loolu pour nga gis ko Europe lu jafe la Europe tey magistrat yi dañoo am seen indépendance États-Unis la même chose amul benn président États-Unis bu mën a wañaar loxo procureur wala loxo juge wala loxo kenn ci ñoom lan moo tax dañoo am lu ñuy woowee indépendance loolu moo lay wan ni kon magistrat bu fekke ni kenn amul ci mom doole moy na ñëpp yem même pied d'égalité bis bu magistrat nangoo ñu jënd ko fitna ñëw na borom bi subhanahu wa taala mi ngi ñuy wax ni inna allaha yamurukum an tuaddu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adl yàlla ne bu ngeen di àtte ay nit na ngeen maandu ngalawaay bu kii taxaw nga xool ni baadoolo la kee taxaw nga xool ni sang la nga àtte jox faveur sang bi bàyyi baadoolo bi loolu gor du ko def jullit du ko def ku ragal yàlla du ko def yow magistrat bi yow juge bi yow miy joxe ndigal te nga xam sa ndigal boo nee nañ ko yóbbu kaso day dem boo oto saisino ci benn mbir day dem koo bëgg ñu tëj ko ñu tëj ko mooy jox nañ la arme boo xamante ni su àndul ak ragal yàlla da foog ñu dund bi fii yem foog googu nga foog ñu dund gi fii la fàtte àllaaxira moo tax ma la ñun àllaaxira gëm nañ ko nii ci ay wax mais ci jëf dañ koy weddi ndax dangay gis ay gis ak ñu mel ni ñoom di def lu leen leer ni teguwul ci dëgg lu leen leer ni tegul ci yoon atte ay baadoola tëj leen kaso yi tey doomu baadoola yi ñoo ci fees moo tax luy dégg dañ daan injustice boo xamante ne deux poids deux mesures moom moo fi am képp ku fa rek nguur lu la neex def yaa tey normal kenn mënu ci dara léegi baadoola bi moom boo déggee ñu ne justice jaar na yoon rek mooy àtte bi diggante ñaari baadoolo la nga xamante ni mbir yi jaar na yoon ki sàcc ginaar ki sàcc saaku këriñ ki sàcc nangam bu ñu koy attee mbir mi day jaar yoon bu ko defee ñu ne justice bi maandu na maandu na waaye bis bu état jote keneen nga xam li ma la wax kon danga xam ni gëm bis penc am na waaye ci jëf dañu ko weddi ku matatiit la nag mooy ñiy atte nañu tiit ñu jàngat wax bi yonent bi wax sallallahu alayhi ci alqudaatu salaasa yonent bi nee na attekat yi day ñett lañ muy magistrat yi juge yeeg ñu demee noonu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam qaadiyaani fi naar nee na ñetti attekat rek moo am ci àdduna nee na waaw mu ne ñaar ñi moom seen safara leer na yàlla nañ ci yàlla musal ñaari magistrat yi safara lañ jëm waliyaasu billah lu leen neex nañu def nag bu ñu faale kenn waye amna na ca ñetteel ba àjjana lay jëm ñu ne ko waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ban magistrat mom moy dem safara mu ne qaadin qada bil hawa fa huwa fi nar attekat kat bo xamni banexu bakkan lay atté motax tax kat bi juge bi ne moytu ñetti mbir ne moytu appartenance

parti bi parti bi la parti Le la faral loolu moy ben ñaaral moy appartenance confrérique mo gëna grave moy par par ci walu këru sunu di ngay gis na la ni par lo dong moko indi lan moy loolu ñi fi wax fi ci Sénégal bokku ñu ci tariqa problème muy li tàmbalee ci man ak ñu mel ni ñun parce que ñun dañ ñoo jàppee ñu gëmut dara ñun dañ ñoo jàppee ni amuñu wéeruwaay tey boo nee yàlla nee na am na aaya yoo xam ni boo ko firee ni ko yàlla firee laa ilaha illallah wàppate law moo tax gaa yu bari dañuy dévier jël autoroute à péage bi dem seen yoon wallahi damay dajeeg ay borom xam-xam ñu naan ma oustaz defal ndànk oustaz man dem la yërëm dem lay déglu damay tiit wallahi ay borom xam-xam ñoo ma koy wax oustaz dem lay déglu damay tiit dëkk bi baaxul dëkk bi nu mu demee mu leer ma ne kii li muy wax gëm na ni fii ku fi wax li yàlla wax nga am problème imaginez loolu dëkk boo xam ni loo wax am na kër gu ko doon boo nee ku woote woo yonent ku dul muhammad waxoo dëgg musiba am na waaw nga defee am ñu jóg et pourtant loolu alxuraan ko wax yonent bi moo ko wax mais boo ko waxee ma sàmba jóg dem xool procureur wala juge ne diw daf ma offensé sama kër ñu autosaisine nu ñëw jël la bu ñu la jël sa kër dañuy patam patamee mel ni benn ngan di terroriste li ma gën a jaaxal nag mooy nan lañ lay àtteeg ñoom ñun amuñu ay loi ñu mën a àtte yooyu amuñu ko parce que pays laïque la yow tey ki ne yonent bi nee na ku woote woo yonent waxoo dëgg yow juge boo koy àtte foo koy teg yow boo koy àtte léegi léegi dama lay laaj ci ban loi lañu ñu àttee loolu kon léegi appartenance politique wala xam appartenance confrérique moom moo tax rek nga ëpp kay doole jàpp ko teg ko te am na mbir yoo xam ne bu amee nit bu waxé li yalla wax wax li wax offensive wul kenn ki offensive la moy ki offensive yàlla wuuteeg yonent bi légui day dem dem ba alquran barké bi dem kenn dootu ko offensif kenn dootu ko wax nga ku am ñu taxaw ñun nangam nangam nangam nangam ñun daf nangam nangam nangam fu jëm lool lan indi appartenance confrérique mooy procureur bi walla juge bi walla ki nga xamante ne ci kàddoom la mbir yi dellu su par parparloo rek am ku mu lor te toujours baadoolo bi la ñuy lor moom la ñuy yenu yóbbu kaso tëj ko ndax amul ku kaas te la mu wax bañ ji ko tëj ay nit wax nañu ñu gën a nekk musiba loolu ñu ne ceel la parce que seen santa ngan la fii nag Sénégal la ñoo ko bokk dafa xat pantre la lu waay wax ñu dégg la lu waay wax ñu dégg la léegi daal ñi war a wax mooy ñi am yenn façon santé yi yenn façon sant yi boo ko sante même bu la neexee saagal président dara du ci mujj dañuy wax rek ñu woote non kii ci kër gi la bokk sët la fi ba ko waaw procureur du ñemee autosaisine gendarmerie du la ñemee jëli te mi ngi fii ci dëkk bii ñu koy dund ñeme nañ koo wax wala ñemewuñ ko wax waaye benn Umar Sall benn Samba Ndiaye bu waxee ñëpp a yàkkamti waaw yóbbu ñëpp commencé kontaan à la uni nag du <laughs> daa bañoon mag ñi du daa weddi woon mag ñi nangam nangam léegi d'accord naa bu fekkee ki weddi mag mi mooy ki wax li Mouhamad wax kon Mouhamad ndeke am nañu ko mag man yëguma ko dama koo yéex a yëg su ma teeloon a xam ni Mouhamad am nañu ko mag kon ma xam nu may def léegi Mouhamad yow juge bi war a àtte yow procureur gi nan nga war a def ak waxi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni mooy sa yonent yow moom moo tax nga nekk jullit moom mii jooy ëllëg pour nga dugg àjjana yow nga ñeme yow juge yow avocat tëj ku wax li muhammad wax nga bàyyi ki wax la keneen wax moo tax appartenance religieuse confrérique musiba la ci suñu réew beneen bi appartenance ethnique bokk la ci li dina taal Sénégal mooy par parloo ci wàllu xeet ak waaso léeg-léeg nga gis juge boo xam ne day àtte mu leer la ni waaso moo tax mu àtte am na sant booy sant boo defee problème dañ lay yóbbu tëj la mais am na sant booy sant xeeñ mbokkoo il faut mu jéem a fexe ba négocier mbir mi ñetti juge yi ma la wax yi yor jikko yi benn dem àjjana yàlla nañ ci yàlla musal ndax bàkkan lañu ñu àttee fàtte nañu yowmal qiyaam bokuna ci li ñuy àttee moy ku leen bëglo alal tur motax yàlla bi muy conseiller daoud daf ko ne ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nas atteel li la yàlla wax sinon soko deful wala tattabi al hawa fa yudillaka an sabilillah bul top banexu bakkan bul top walu ethnicisme bul topp wàllu alal bul topp wàllu tariqa bul topp wàllu appartenance waaye atteel li loi bi atte selon mbir mi ni mu demee pour yawmal qiyaam boo ñëwee nga mucc wala tattabil hawa bul topp kii kii xaalis rek la bëgg kii ndombo tànk rek la bëgg kii réy rek la bëgg bu ko topp soo ko toppee rek fa yudillaka an sabilillah da lay réeral mbokk yi loolu nag boo ko seetloo régime bi yëpp fan lay dellu mooy yéefar si démb dañoo weddi woon dekki ci wax ak jëf ñun tey dañoo weddi dekki ci jëf waaye ci wax ñu noppi suñ jógee ne jullit lañu te bu ñuy jugé duñ ci xool yàlla tey ñi ñu dugal ci kaso bi man damay tiit nan ngay tëjee nit ñu di ko paquetage yow nga dem sa kër taal sa clim say doom di ram di yek sa kaw nga nelaw xaram yow do nit wallahi ladi la ilaha ghayru war nga xamni yow do nit li lay wonni do nit bu don sa frère bo bokal ndey ak bàyyi doo ko def do ko def mukk parce que mbok motax bu don sa rakku jabar do ko def parce que mbok tax waye kële nako tëj dina xamni duma moromam dina ko duma yombuna dumal fi fi mom lu neex way na def mais yow mal xiyam ñëppay tollo ken du sut moromam ken du gëna a moromam ken du gëna ku ponkal moromam mahkamatullahi al aadila mooy taxaw atta yàlla bu mandu bi tribunalu yàlla bu mandu bi lay taxaw lépp ñu wër ko ab ziz dana taxaw yowmal qiyam ñu diko ko laaj di ko laaj di laaj ba mu ne ak a neexoon ma naaw ba Surayya mbëkk ko ne waddet ci suuf dal ci xeer dee yaa laytanii kuntu turaaba alalu àdduna bi jaru ko tabax kër gu rafet jarul nga tëj benn baadoolo xaalis bi ñu la jox jaru ko ragalal yàlla dellul pourquoi tubaab bi yéefar bi ëpp la ëpp la ak dal gën laa tiit ci ak doomu aadama français bi ñemewu koo def américain bi ñemewu koo def te ñi ëpp ci ñoom du ñu jullit ñoom ñu nangu ne du ñu jullit nangoo maandu yow ngay jullit ñu di la corrompre yàlla nañ ci yàlla mu tam moo tax bàyyi xel loolu du ci magistrat yi rek lañ ko mën a wax mën nañ ko wax ci ñu bari dangay yëg ni bakkan mooy dox waaye dëgg ñoratut ñu kon nag yéen attekat yi yéen borom doole yi ragal leen yàlla yàlla nee na yàggatul dara dangeen ngeen rëccu te ku nëg ba yowmal qiyaam jot ngay rëccu perte ñëw na yàlla nañ ci yàlla musal